Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf maasekat bu jigéen bii di Adji Sarr ma nga jëm ci àttekat ba journal Les Échos moo joxe xibaar bi ci xëtamu njëkk ba wax ñu ne juge huitième cabinet bi yore dossier bi moo convoqué Adji Sarr suba ci alxames ji ngir auditionné ko Ousmane Sonko ma mu doon maase it bi xamal nañu ne ginnaaw suba ci àjuma ji ca ñu nar a dindi immunité parlementaire am dimbalaanum kiirlaay ma mu amee ci assemblée nationale ngir mu mën a dem janoo ji ak yoon conférence des présidents bu assemblée yoon wi ñu war jaar ba dindi immunité parlementaire am yoon yéenekaay bi ne nañu yoon pareegul ci ñoom ba léegi ne Souley Biram Diop ak Abbas Fall mandat dépôt nañu leen ba ca kaso ba fa la ñu fanaan démb jabari Souley Biram Diop di Patricia Mariam Ngaldou moom bàyyi nañu ko mu dem waaye ci contrôle judiciaire ca la nekk L'Observateur ne ko du moom rek moom la ak Fatima Mbeng Dayiru Thiam ak Bawar Dia coowal massage li indi lii lépp Vox Populi nee nañu président Macky Sall mi ci Ousmane Sonko ak i gaayam di tuuma la ñoo ci ginnaaw di def seeni complot ngir seet nañu ko sànke président Macky Sall nee na wax joojee nañu ko ca ko ci ba mu set wecc ndax moom am na yeneen yitte de am na leneen lu gën a doon farata lu dul taxaw naan mi ngi comploté ci yu ñàkk fayda yi Le Quotidien nañu Macky Sall mi ngi moytu coowal massage yi waaye Ousmane Sonko moom génnewu ko ci nee na ñëpp xam nañu ne benn compétence rek nga am mu di di complot say adversaire politique ngir sànk leen Le Témoin ñu nañu complot gi waa parti Pastef di wax ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba di ca taqal Macky Sall Macky Sall génnee na ca boppam waaye Ousmane Sonko ko ciy gën di dugal ne démb lañu ko dégg moom Macky Sall ci waxtaan wu mu doon def ak rajo tubaab bii di RFI rajo France Internationale mu ne moom am na yeneen yitte yu gën a doon farata leneen lu mu mën a lijjanti lu bokkut ak di kompaloo ci ay caaxaan waaye Ousmane Sonko moom xaati goñ na ne ci li ñu koy jiñ ak di ko ko waxal ci réew mi boobee ba léegi loxob Macky Sall ci te bëgg koo sànk ci wàllu politique rek moo tax mu koy def suur soit nañu kurpaña tàmbali na tàkk ci diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko réew mi quotidien mel ne ku naan ko romb nañu ay kurpañ ci mortal combat dëgg ci la nekk combat beneen bu ñu nekk boobee ba léegi mu di jële fi mbas mi di coronavirus bi yéen kaay yu bari ñu wax ne door nañu campagne bi jëm ci ñàkk nit ñi ngir aar leen ci coronavirus bi sud bindal ñu ne Sinopharm ubbi na yoon wi Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé moom it wane na yoon wi jiitu na président Macky ci ñàkku gi ngir aaru ci coronavirus gi Les Échos bind ci xëtam mu njëkk ne Diouf Sarr soobu na ci yëf yi Macky moom ma ngay day naagal ñàkku gi ñu tàmbali démb ci réew mi ngir aar askan wi ci mbas mi enquête yéene ngelawal yaakaar luy upp la ko tuddee réunion bu mu doon séq ak taskatu xabaar démb fa la li ca xew dëgg-dëgg nee na ci 72 000 d'orientation yi ñu jot ci plateforme bu Campusen 69 002 yëpp nañu leen mu ne am na ci ñaar fukki demande ak juróom-ñaar yoo xam ne dañoo forkoloo ndax seeni borom dañoo yeex fay seeni frais d'inscription am na it yeneen ñaar fukki bachelier ak ñeent yoo xam ne ñoo dem ba biir bàyyil seen bopp Cheikh Omar bu weesoo juróomi téeméeri bachelier seeni dossier ngir seet nu ñu leen orienté mu ne fañ leen bëgg a moo di ca université Cheikh Ahmadou Bamba ba ca Touba ñi fi demoon Touba bu yàggul bëggoon a tawaaf ca jumaay Touba ja l'observateur nee nañu ñooñee ñi leen jiite ñu bari ci ñoom ca kaso bu njaareem fa la ñu waa ji leen rungoon yóbbu ñu naan ko jabang moom ak ñeent ci ay taalibeem démb ci lañ leen mandat dépôt ba jël leen yóbbu kaso ki ñu ne mooy seen wasila ñoom ñëpp l'observateur Mouhamadou Cissé def ndaw si di Soukeyna Diallo ubbi l'observateur Mouhamadou Cissé daf doon bëggante ak Soukeyna Diallo ba ëmbal ko Soukeyna Diallo l'observateur nañu jenn jigéen la ju yore boutique buy jaay ay bagages yi jigéen waa ji di Mouhamadou Cissé teg ko dil ànd ak beneen waay bu ñu naan Youssouf Camara ñu dem dajji boutique ndaw si jël foofa valeuru ñaari million bu manqué ñeen fukki junni maanaam un million huit cent l'observateur nañu li ci gën a yéeme moo di moom Mouhamadou li muy def ba noppi moo gunge ndaw si Soukeyna Diallo gendarmerie ngir mu porter ji plainte